génn nañu ci barab bu tedd bi kii moom ke dootu ko wax sax mooy xaritu ñëpp mooy soppe ñëpp Serigne Saliou Mbacké déggoo damaa dugg ci biir rek daal ne ah kii damay borom jamono Serigne Saliou Mbacké hmm. waaw kooku nag dafa nekk nitu nit ñëpp hmm. ku ci nekk rek am nga loo mën a wax ci Serigne Saliou Mbacké ñëpp ko bëgg waaw ñëpp ko bëgg moom la ñuy wax borom jamono la ñuy wax borom jamono eh. man de wax dëgg fa yàlla bi may ñëw fii hmm. mooy jamono bi Serigne Saliou Mbacké dëddoo avant ñu fi def benn seng ma ñëw fekk fi minbar bi ñu daal teg ab maquette bu bëla la am naa seede boobu ci Serigne Saliou Mbacké ndax jamono jooju damaa jël sama lépp ab junni laa si sama àdduna ci laa paas ñëw tuuba waaye jamono ji ma fi ñëwee Serigne Saliou Mbacké jaraloon na ma ko ndax rëccu ma ko ndax li tax rëccu ma ko taw gi ma ci am rek dafa bokkut ak tawfeex bi nga xamante ne nii moom laa ñëw ci xabru bi hmm. ndax bu dul loon Serigne Saliou Mbacké hmm. man de chaque jour dama koy wax dama ko gént ci barabam bii hmm. fii mu nekk nii ab souterrain la de xam la souterrain la musuma xam loolu souterrain moo nekk fii Serigne Saliou Mbacké nekk ma dugg fii ci buntam bii ab Baye Fall jëlee ma fi di ma wàcce ci suuf di ma wàcce ci suuf di ma wàcce ci suuf ba ma tiim sëriñ Saliou Mbacké mi ngi toog ñaari Baye Fall seq ko mu ma del jàng del jàng mois yibu loolu la ma wax. loolu yëpp ci gént. loolu lépp ci gént. nga wàcc ba ci suuf. ma wàcc ba ci suuf man de mun naa wax ne billahi wallahi lazi fii sëriñ Saliou Mbacké nekk sous terrain la. suu terrain moo nekk ci biir ni mun di waree nii ni xam ni verre bi defee nii noonu la defee ba ci suuf. loolu ci baatin nga koy waxee loolu ci baatin laa koy waxee. man maa gën Serigne Saliou Mbacké Baye Fall ma ma wàcce ba ci suuf ay njajam di di di bërëngu bi ma wàccee ba ci suuf maa ngi fekk Serigne Saliou Mbacké mi ngi toog sol xaftaan bu bëla ñaari baay Fall ñu ngi ko seq ma daal sukk ci suufam mu daal may ñaanal ne ma ma sàmm del jàng mois yibu waaw loolu nag ak ci fel bu rëy rëy la ci man ñu lay wax ne kenn Serigne Saliou Mbacké waaw mu may sangab jamono yow am nga ci moom lu bari man am naa ci moom lu rëy rëy rëy bu moom bu ma neexee ma ne maa moom hmm. ñaareel ba damaa dem xel koo mam ga hmm. xel koo mam hmm. ndongo yi ñëpp di julli loolu nag xel koom dong laa ame amee xel koom sëriñ Saliou Mbacké ji loolu nag aw taw féex la ci man ak cofeel la ci man ndongo yëpp di julli baas bu nekk baas bu mag góor yàlla yëpp wër ko ab sang nekk fa waxtu tisbaar jot ñu daal ma ah ndongo li jógal teel ñu baas bi ci xel koom gii ñu julli ndongo yëpp jàpp di julli mën naa ne man ma samba mii dama daal taxaw téye tib bi moo ko njëkkee téye tuutee tere sax ma bàyyi tib bi ndax tàng waaye comme xel koom la te ci ndigal la moo tax ma ne ah lii de moom jar na ko Serigne Saliou Mbacké daal yàlla dañ ko yàlla feel te taaf ñu ci barkeem am nañ mbégte ci yéen yéen tamit ngeen yàgg fi loolu te wér